alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wa tubaarakul xarakaat wa tudcaful xasanaat summa salaatu bi akmaliha maca salaami bi atamihi ala ashrafi wa akmali rusulih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 moo xam ña nekk caaroy la moo xam ña nekk kayaar moo xam ña nekk ngapparu moo xam ña nekk fële ca géeju gàmbi ga waaye jagleel ko suñu mbokki sëfóor yi nga xam ne ñu ngi xëy di raxasaat oto yi di dolliwaat ndox ci radiateur yi fas yéene nag laaxu wut ay client ba mu fees nga tëj tëjaale sa bopp tëjaale say client door a taal te xam nga ne ak tëj ak taal ñaari baat yooyu raglu la doora a de war a départ nag jëm fi nga war a jëm ak ñoom ñooñu ñëpp yal na yàlla boole musal leen ci xayu oto te boole jox leen ay oto suñu mbokki commerçant yi xam naa ne ñenn ñaa nga xëy sax dugg ci seeni oto jëm ca marché ya ñenn ñaa ngi nàmm seeni tànk fa ñu jëm soriwut takk seen casque yi di déglu wal fajiri jëm ca marché ya <coughs> tabaarakallaahu ñenn yaa nga ca moto ya jëm ca marché ya ñenn ngi ñoom amuñu marché ndeysaanam fa nit ña nekk rek mooy seen marché laxasoo darab ya ñooñu ñëpp yàlla na yàlla boole defal leen jàmm may leen ak bénéfice bu am barke ci la ñuy yëngatu bañ ñu yëg ci ndimbalal yàlla ci boppam ñu mbokk ya nekk ci Jakarta di ay xale yu góor yu am jom ñenn ñi ñoo ko moomal seen bopp ñenn ñi dañ koo leb ñenn ñi dañ leen a embauché ñiy daw rekk di verser ngir bëgg lu ca mën a ruus rek ñi mën koo def ca kër ga dimbali ci seeni waajur bari na ci ñoo xam ne nii passé nañ sax takk soxna waaye amaguñ luñ mën a duggee ci soxna am na ki ñoo xam ne ndeysaanam néew doole lool yal na yàlla dimbali leen ba seen jakarta yooya yàlla soppi ko ay oto defal leen xéewal defal leen wërsëg suñu mbokki baykat yi yaakaaruñ lu dul am mbay ñoom tamit yàlla na yàlla dimbali leen defal leen prix yu baax ci seen gerte yi defal leen ak yokkute bu gi dayo ci seen dugub yi ak seen mboq mi ndax mboq yu baax yooya nekk ca naaj wa ku nekk ci ker gi sa xel war na la ne daj ndax ki la tax a nekk ci ker gi mooy ka nekk ca naaj wa rek kon ñooñu baykat yooyu tamit ñëpp yal na yàlla dimbale leen taxawu leen barkeel leen bokkoon nañ ci ñi gën yore koom komu réew mi waaye mbokki politiciens yi tamit tabaarakallaahu yal na yàlla gën a defar seen jikko yi gën leen a jubal génnee lépp luy xeeti naxaate ak jikko yu yàlla gërëmut tabaarakallaahu ci seen xol yi ak seen xelaat yi te jubbanti ko jubale ko ci jéem a defaral nit ñi te muy lu dëggu na discours ya rafetee jikko yaag jëf ja rafetee ko yàlla musal leen ci jéem a defar defaroon nit ñi rekk le sëriñ Abdul Aziz mu baax ma waxoon politique du dara lu dul wax loo def rek ak def loo dul wax loola nag ñu néew ca génn ñooña génn ca yàlla nañ ca génnee ña ca nekk ñépp ci jikko yooya tabaarakallaahu jamono ji tamit ñu bëree ngi yuuxu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 boroom xam-xama nga fa ilimaan yaa nga fa boroom doomi soxna yaa nga fa boroom ñi ñi nga xam ne tamit tabaarakallaahu mën naa wax ne sax ay awliyaaw di wëlliyu yàlla yi sax ña na fa kon nag place boobu ku ko romb rek tabaarakallaahu war ngaa wàññi sa oto nànk jàngal leen faatiha ak ñetti alam nasra yàlla yombal seeni mbir xettali leen tabaarakallaahu yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def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 yooyu yëpp tamit yàlla na yàlla xettali leen comme marché ba la ñuy laaj ña fa la dem yàlla na bi marché rek ñi nga xam ne dañoo xam ne jàngoroy poos te mu yaatu lool ñoo ñëpp yàlla saafara jàngoroy poos yi comme ni mu saafaree jàngoroy yaram yi ci barkeeb aayaat yi ñi fas yéene firi mu nekk suñ darsob tey nekk ca suuratul xajji nekk juróom fukkeeli hotel yàlla ak juróom benn ci téeréem bi sama boroom subhanahu wa ta'ala digal ñu ci ne maa ngi leen digal ñeenti yëf bi ci njëkk maa ngi leen di digal yéen ñi ma gëm ne na ngeen fonk rukkoo ak sujjóot waaye fonk rukkoo ak sujjóot lim ci namm yépp dafa bëgg a wax ne rek fonk leen julli ndax julli dafa foor waaye ñaari ponk yi dañoo bokk ca ponk yi ca gën a màgg mooy rukkoo ak sujjóot moo tax sama borom ne yaa ayyuha alladina amanu rku'u wasjudu ñu ne ko wax nga ñu ñaar yoo xam ne mën naa dellu ci benn mu ne bi ci tegu wa'budu rabbakum sax leen dakk ci wéetal seen borom lalal maanaam lalalee ko ak jaamu ko nangoo def ndigle ya baxi tere ya beneen bi ci tegu wa faalul xayra fu ngeen dégg yiw dem leen ngeen jéem koo fàggu ji da leen jëf yiw yiw dafa bari romb sama romum julit nuyu ko yiw la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 nga ñaanal ko teraanga yam nekk sax te nga yéene ko ko yiw la kon wafaalul xayra na ngeen sax dàkk ci jëf yiw waaye nag wa jaahidu fillaahi xaq jihaadihi na ngeen jihaad ci wàllu yàlla ci yoonu ci yàlla mi yëkkati diineem jihaad dëgg dëgg jihaad jihaad leen ci xam-xam jihaad leen ci seeni am-am jihaad leen ci seen kartan jihaad leen ci seeni ci seeni ci seeni xelaat bu ko defee na nga door a arrière ne ñeenti ma digal leen bu ngeen ko defee laallakum na xam nga ba nga ne wafaalul xayra laallakum na moo ciy tegu wa jaahidoo door a ñëw mais dangay njëkk a firi wa jaahidoo fillaahi xaqa jihaad yi door a arrière ne ñeenti ma sant leen su ngeen ko defee xee sikk amut ne laallakum tuflihuna kon leen leer na ma nàññ ne kon da ngeen pexe te pexe rek la ñuy wut kon yàlla nee na pexe li gën a gaaw ci li koy maye mooy julli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 nga jihaatal ci liggéeyal sa soxna yi di nangoo dem di liggéey di fàggu dépense liggéeyal sa réew kon jihaat dafa bari ay façon kenn ku ci nekk am na noo manee fa nga manee rek nga jihaat fa mu kenn nag mënta manee fépp yàlla nag ne euh, mën a jaa maanaam wa jaahidu fillaahi xaqa jihaad yi huwa jtabaakum yàlla moomu moo leen tànn yàlla mi leen tànn tànnal leen tànnal tànn na leen liñ bind yéen a ko ci gënal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 waaye tamit li may daanee laaya ji man yàlla mooy fa aqimu salaata wa atu zakata moom laa ko ubbee woon mooy taxawal leen julli te moo doon war kooxo ma raaki an yaay wala si amanul kooxo was bi doon moo rek waaye gis nga ba muy daane xat aaya ji mu taxawal nag tudd julli lépp julli dugg héene dugg faatihatul kitaab dugg saar dugg rukoo mi duggoon duggaat maanaam sujjóot mi duggoon duggaat taayaak ak ñaan ak sëlmal ak lépp dugg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 képp koo xam ne wuy ji nga waxoon labbayka wuy si naa la yow Ibrahima sa xoote bii wenn yoon nga ko waxoon labbayka bala ngaa dee loo gàtt gàtt wërsëg ak loo gàtt gàtt fan danga xaji màkka waaye wenn yoon rek ngay mën a dem nag ku ko wuy woon wenn yoon loo bari bari xalal loo gudd gudd fan loo bari bari pexe mënoo paase xaji wenn yoon ku wuy woon ñaari yoon da nga dem ñaar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 kon nag yàlla nañ bokk ci ñu huyu woon ñu huyu woon lu bëree bëree bëree moo tax ba nga demee sax li nga dikk firndeel mooy labbayka allahumma labbayka yow yàlla huyu woon naa la huyu woon naa la ca alamul arwaax ba ibrahima xootee sama jëmm ji nag sol na mbubbam roox sama roox gi sol mbubbam jëmm maa ngi firndeel sama huyu ji googa ci huyu gi ma huyu si la kon nag loolu lañ bëgg su ko defee nag yàlla nee na ku takk xalal ju xaraam foo jëm nga ne màkk mu ne xooxuma la moo tax boo ñëwee wuti naan labbayka man la laa labbayka wala saxdayka na ngeen set alal ju set ju sell door cee takk seeni bagage door maa xuy waaye ku takk xalal ju xaraam xuy si ma tamit xuy nga ma waaye man ma laa xooxut nit nag bu xuujee ku ko xooxut torox toroxal ko rekk la fay jëlee toroxtaane dong la fay jëlee moo tax bëri na kuy dem màkka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 état bu teew tukki woo état fekk la Makka état bi fekk la Madina état bi tabaarakallaahu ñu ñu am si loo xam ne day wax ne xare leen am si yoo xam ne day wax ne juboo leen ci suratul xaj rek nga koy waaye tamit boo jëlee saar wi nga lim baat ya ñaari junne baat la ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn deux mille deux cent vingt onze la ci ay kalima waaye boo jëlee saar wi xuruuf yëpp nga calculer ko juróomi junne xaraf la ak juróom-ñaar. fukk ak juróom mooy cinq mille soixante quinze la ci ay xuruuf loolu la saar wi làmboo kon saar wii nag li suratul hajj moom moo làmboo ayat yi nga xam ne moom laa waxoon pour bëgg la koo firit ci yaay walis na amanu rkuu wasbidu wa'budu rabbakum waf'alul xayra la'allakum tuflihuna waaye ayat yi boo ko càmbaraatee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 kon wala xadd xalaq naakum summa sawar naakum waaye du loolu rek seeti loolu ca la araaf ca aaya onze tamit gis nga ñoom ñaar ñëpp ñoo toll même onze faatiri onze bi tamit a la araaf onze ba tey tamit yàlla ne maa la fi indi yaa ayuha annaasu in kuntum fi raybin min albaati fa innaa xalaqnaakum min turaabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudgatin muxallaqatin wa xayri muxallaqa li nubayyina lakum suratul hajj seeti ko ca aaya cinq kon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 min nutfati amsaajin nabtalihi fa jaalnaahu samian basiran inna xalaqna al insana min nutfatin amsaajin nabtalihi fa jaalnaahu samian basiran c'est ko suratul insaan ca aaya 2 foofu tamit yàllaa ngi wane fi doomu aadama soqee ko te moom mu soqi ko ca ba tey mu ne huwa alladi yusawirukum fi l arxami kayfa yashaau laa ilaha illa huwa al azizul hakim ala imran aaya 6 kon aayaat yi la yëpp boo ko toppee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 wa ilaa madyana axaahum shuayban qaala yaa qawmi ibudu llaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu seeti ko ci suuratu Huud aaya 74 yonentu yàlla Muusaa ba mu ñëwee lu mu wax wa qaala Muusaa yaa firawnu inni rasulun min rabbil alamin xaqiqun alayya allaa aquula ala llaahi illa alxaq qad ji'tukum bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani israila mu jeex yonentu yàlla Ibrahima mi ko jiitu ba mu ñëwee lu mu wax wa ibrahimu id qaala li qawmi ibudullaha wattaquhu zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuuna c'est ko suratu ankabut aya 16 kon xamul benn yonantu lu dul ba mu ñëw lii rek lay wax xoolal yonantu yàlla Iisaa lu wax wa qaala almasihu ya bani israila abudullaha rabbi wa rabbukum maayida seeti ko ca aya 72 yonantu yàlla Muhammad ba mu ñëw lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam qul inni umirtu an abudallaha muxlisan lahu diina wa umirtu an akuna awalal muslimina qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azimin qul illaa abudu muxlisan lahu diini seeti ko faabudu ma shitum min duni seeti ko ca sumar aya onze ba ci aya quinze kon xamul benn yonantu ci yonantu yàlla yi ci yonantu yàlla noox ba ci sayiduna muhammad alayhimu salaatu wasalaam lu dul benn rekk lañ wax mooy jaamu leen yàlla te wéetal ko loolu moo du kon lu tax yàlla indi ñu fi du dara lu dul nañ jaamu yàlla rek kese amul leneen amul leneen loolu rek a tax yàlla indi ñu fi waaw nag mu des ñetteelu question ba waaw gannaaw bi ñu baxee ko ci àdduna bi ñu jëm yàlla ne fu ngeen jëm xanaa dajal seen borom mi ngeen baxee koo woon rek fa ngeen baxee koon ngeen di jëm te seen borom ngeen baxee ko woon te seen borom ngeen dellu alquran a ko wax inna ila rabbika rujaa jeex na seen borom dong la waxaat na ko mooy aaya bi mujj a wàccee ci alquran ci suratu baqara muy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah lu ñu fay defi mu ne suma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuqlamuuna wallahi ragal leen bis boo xam ne def na delloo leen ca bis booba ci seen borom bakkan bu ne lam jëfoon ñi fay ko ko ba mat sëkk duñ ca wàññi dara lu ca bokkut duñ ca yokk dara lu bokkut duñ ca yokku dara duñ ca wàññi dara lu ca bokk duñ ca yokku dara lu ca bokkut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 ñaari yëf rek la jëfee ndigal yi bàyyi tere yi su ko defee nag jëfee ndigal yooya la ca ëpp doole luy cër di jëfee jullee ca ëpp doole julli moom la ca ëpp doole ci moom ñaari yëf la mooy maanaam rukkoo ak sujjóot moo tax yàlla tudd ko ne yaay walla si amanu koo wasgudoo door a wax ne wa'budu rabbakum kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax aayaat yaa ngoog ci alquran sama borom santaane ca loola Ah, tabaarakallaahu julli rukkoo dafa foor moo tax boo ko defee sama borom sant la nanga fa sàbbaal ne fa sabbih bi ismi rabbika al azim foofa ngay waxee subhaana rabbi al azim wa bihamdi ba aayaat yooya wàccee ci la yonantu bi ne ijaaluha fi rukoo fi rukoo fi rukooikum su ngeen rukkoo di leen wax subhaana rabbi al azim wa bihamdihi Cheikh na Tidiane ne boo ko gaawalee juróom benn yoon boo ko yéexalee ñetti yoon doy na ca sa cër yëpp dal nga door a mën a siggi boo siggee nga dem ba taxaw sa cër ya dal nga a dem sujjooti boo sujjootee na nga door a wax subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi yonentu bi daana wax tamit ne subhaana eh, maanaam fil jabarooti wal malakut wal kibriyaai su ko defee tamit lii daana ko wax moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci rukoo daana wax tamit ne allahuma laka wa bika amantu wa laka aslamtu xasaa laka sam'i wa basari wa muxi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin imaam ahmad imaam muslim abu daawuda ñoo solo xadis boobu Aïcha nent mi yonent bi daana wax ci rukkoo subbuhun quddusun rabbul malaayikati war ruux muslim abu daawuda nasaa yi ñoo indi xadis boobu kon rukkoo lañ cay mën a wax dafa bëri subhaana rabbika al azim ca la bokk alquran a ko wax fa sabih bi ismi rabbika al azim fa sabih bi ismi rabbika al azim waaye tamit mën nañ caa wax allahuma laka rakaatu wa bika amantu ba mu jeex yéen too ko wax ci sallallahu alayhi wa sallam ci hadisu imam ahmad ak muslim mën nañ caa wax subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruux muslim a ko ndég abu daawud ak nasaay yi mën nañ caa wax subhaana dil jabarut wal malakut wal kibriyaay wal azama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 yàlla ne sa xar-xaram boobu nga gën fonk laa bëgg nga ne ko ràpp ci ci suuf su ma ko ci nga may gën a jege was jut tarit boo fa demee looy wax damay bëgg nga sàbbaal ne subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi lañ bëgg nga wax ko boo ko gaawalee juróom benn boo ko yéexalee ñetti yoon ku ñuy tuddee abi xumaydi asaa'idiyu dafa daan wax ne yéen a ngi nii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 kullu faqaarin makaanahu fa ida sajada wadaa yadayhi gayra muftarishin wala qaabidihima wastaqbala bi atraafi asaabici rijlayhi alqiblata fa ida jalasa fi rakaatayni jalasa ala rijlihi lyusra wa nasaba lyumna wa ida jalasa fi rakaati alaxirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal uxra wa qaada ala maqaadatihi xadis boobu mbooleem juróomi téere yi gën a wér ci xadis yépp ko andi buxaari yu andi na ko ibnu maaja andi na ko tirmisi yu andi na ko nasaay yi indi na ko buxaari yu andi na ko muslim rek moo ko andiwut mu ne maa leen gën a mokkal maa ngi nii yéen a ngi nii na daan yonantu bi julee maa leen ko gën a mokkal ñu ne ko yow la ñuy déglu mu ne yonentu bu masaan a kàbbaar day yëkkati ñaari loxo ya ba tollook ñaari mbagg ya mu ne allahu akbar ñaari loxo ya tolloog ñaari mbagg ya du ca tàllal du ca ba ko du ca bank benn mu tàllal ko bu rukkooxee dafay jël ñaari loxoom ya dëgëralee ko ca ñaari bët hoomam ya mu jëm suuf bu ko defee ténk ya mooy nekk ca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 Euh, ci ci tànkab càmmooyam ba samp tànk tànk ndeyjoor ba mu samp ak baaraam ya waaye nag bu fekkee rakkaa bu mujj ba la moom fi muy war a jeexalee dafay dafay dafay jiital dafay jiital euh, tànk càmmooyam ba samp beneen ba muy ndeyjoor ba mu toog ak toogeekaay yi ci suuf lii ma wax la juróomi téere xaddiis yi gën a wér yépp ko indi juróomi juróomi juróomi téere xaddiis yi laa bëgg a wax ma ne juróomi téeméer ya su ko defee kon yooyu yëpp nii la doon jullee ci ngay déggee ne li hadis bi gudd gudd déggoo ci xabdu li hadis bi gudd gudd déggoo ci satlu su boobaa kon nag nekk fii di bëgg a taxal na ñuy julli dañoo war a yoor ñii ne man yooruma damay xabdu yow waroo koo def coow la bëri waaye waaye yooyu ci amut solo la xam solo mooy na ñëpp julli ñii xabdu ñëpp bu leen ñëpp toppandooroon kéeféer jeex fi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 yonentu bi ne ko irja fa salli fa innaka lam tusalli ba muy ñetti yoon ba koy yonentu bi jàngal nañuy jullee ah ko lu mu ko wax wallahi dafa ne ko wallazi baasaka bil xaqi maa uxsinu gayrahu fa allimni fa qaala mu ne ko ida qumta ila salaati fa kabbir suma qara maa tayassara maaka min alquran suma arka xata tatma inna raakian suma arfa xata taadila qaiman suma asjud xata tatma inna saajidan suma arfa xata tatma inna jaalisan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 toog ba sa cër yi dal nga door a sujjootaat ah nii ngay def nag ba sa julli gi jeex kon gis nga ko yenn détails yi nga xam ne yàqut julli yonentu waxut ci ak moom dara waxut ko ne ko yëkkati sa loxo yi ba mu tolloog mbagg boo ko baxee yàqut julli boo yooree mbaa nga jël nga xam du ko yàqut julli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 ak sujjóot kon nag yooyu tamit nañ ko ci bàyyi xel ba laaya ciy daanu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 mat ko tamit ci ragal yàlla kon nag yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ak taysir boo ma toppee suba ci waxtu wi ma dugg ak yow nag ci ni daaw saabi wa xamsuun kooku nag ma nga ca a nuur ah, ca aaya ñaar fukk ak benn mooy nekk suñ darsu bi ëllëg ci yaa ayyuha allazina amanu laa tattabiu xutuwaati shaytaani wa man yattabi xutuwaati shaytaani fa innahu ya'muru bil fahshaai wal munkari wa lawlaa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abadan walakinna allaha yuzakki man yashaau wallahu samiun alim suba mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbuñu ca in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu li uni wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu